boo fi njiitum réew mi ñëwee fekk fi suñu njiitum dëkk dëkk fépp mobilisé wu taxaw ci tali président taxaw ñëw nuyoo jël kàddu jox ko suñu maire monsieur le maire booy wax la nga war a wax yow nga nee nga ndox mi doy na courant bi doy na béykat bi kontaan na nappkat bi kontaan sàmmkat bi kontaan waa yow xanaa yow ya kontan, yow sa kër bu amee ndox neel am na ndox rek bu fekkente ni am nga courant neel am nga courant rek mais bu ni ñëpp am nañ courant. yeah Mboro va mal ñu wax ko teddee na ñëpp jóg ñu xeex nda fii lañ war a every day yaa see here the same thing depuis temps boy ay jeunes yu ñàkk gëm seen bopp ak ay dirigeants yu incompétent boy diplômé di chômé usine yi ne fii te amaluñu maire bu ñëw gën a yées ñoom fari nyata yem mburu foof ko fariñ ñaata at ci ren mënuñu jot ci li ñuy dagan waaye fokk mu demee ni ndax lu waay nangu teg ko ko dafay dagan mënu di ko nangu parce que day sabote waa Mboro wegul waa Mboro parce pas bu ñu nee sabote weesuwul juróomi fan avant tabaski

na dem na dem a dem a dem akora tey na dem na dem na dem na dem a dem a dem na dem na dem na dem a dem a dem akora tey na dem na dem a na dem a dem a dem. na dem na dem a dem a dem. yàlla ngir lan nga ni au moins consacré na sama temps dama ñu xeex ndox ba jël naa benn waxtu teg leen ko ndox mi boole delloo ko xeexu ndox bi. bu ko defee nga xam ne kat yow jëriñ nga jaral dëkk bi parce que dëkk bi kat mën nañ booloo lu nekk ñàkk ko bu nekk tee sa bopp waaye bu ñu booloo ñàkk ndox ñu ñëpp ku nekk moo koy yëg kon nag askan wi chauffeuru clando yi chauffeuru transport en commun yi may ñaan ñëpp bu ñu activités yi mel ni amatee def leen mu nekk une journée morte boo xam ne kenn def dara daf ñuy jaral tey kenn war woon a xëy kenn warul woon a gont ñëpp dañoo war a concentré wu taxaw xeex ci ndox mi parce que ndox kenn mënu ko ñàkk te nag seul la ma ñaan askan wi dañu bàyyi xel ci loolu ngeen mboor a mën a gën a jëf daa di ñëw taxaw ngir xeex ngir jëlaat encore seen ay forage ci biir loolu dafa am anglais buy wax ci wàllu ci wàllu ndox ñu di Ibrahim tay Ibrahima Sène mu jox ñaari kaddu leral ñu anglais bi lim wax mu faram fajé ko ci Ibrahima bismillah assalamu alaykum mbokk ak ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu vraiment seen teewaay waa benn discours bu ndaw rek di wax ci anglais bu ñu paree ñu teg ko di wax ci ndox mi nga xam ni kenn mënu ko ñaan parce que est the water good water three days water because water is the most important coupure yoo xamante ne ñoo ëpp facture ba kon donc di la mën a menacer ñu ne waa Mboro nañu kenn nañu am fulaak fayda nañu xam ne léegi jeex na population de Mboro ñu nangoo di kenn di leen noot boobu noonu il faut ñu dugal ay moratoire pour ñu mun ñu andil courant bi nga xamante ne mooy tax ñu mën a root forage yi ñu xaman ko loolu ginnaaw bañ leen doon wax kenn fay facture yi lii ci jublu woon ak waa teg aku waa Mboro ak di exploiter waa Mboro waa Mboro nag dootuñu ko nangul kenn waa Mboro tollootuñu ci jamono joo xamante dañ leen di exploiter tollootuñu ci jamono joo xamante ne da ngay ñëw def lu la neex nga dem te dara du la ci fekk na lépp loo ne jaarul yoon askan wi taxaw ko ba rétablir ak yow ko kon di leen wax ne bu ci kenn tayel bu ci kenn sonn bu ci kenn xamal nit ñëpp xam ne xeex bi xeexu askan wi la waruñu ci xaar ma samba wala ma demba wala kum ci mën doon commandé wuñ ko lool bu doy sant am xel waaw am déet fi ñëpp sonn ñàkk ndox rek mu ngi dund gën a métti lool lépp def teg ñu fekk ñu jeeg ngay fay dafa diis te doole yëpp ñoo ngi gis coono rek la niis te néew doole tax na lépp ñu diis loolu mënul béy baa bu ñu sax ñu toog ci ñu diis ñu coono lañ diis bu dee dégg mooy fay ñu seen i jot ci coono semence baa ne muy rey ku lépp tàkk léegi soo kenn bi fay doole poos wala ñee di mànd ñee di ñooy fay yéen a ñuy rey bëgg a tuñu te ñu na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem ñu nañu xaalisu askan wi dem bàyyi ñoog ay bor de 52 loolu nekkul lenn lu dul sàcc jël seen loxo dugal ko ci poosu askan wi te dem bàyyi ñoog ay bor yu doy waar doy waar doy waar même lu ñoo Toubatoul yaa dañ leen a sàcc loolu la Aquatec def suñu 9 millions la ñu tëj suñu forage en cause ay factures yoo xam ne yëgunu ko gëntunu ko. askanu Mboro waaye dooleel aussi askan wépp yi nga xamante ni tey Aquatech moo nekk di gérer seen forage ñu am fi tey mouvement bu ñuy wax doy na ki leen fi teewal tey encore di Guy Marius Sagna moom mi nga xamante ni comme ni ngeen ko xamee du noppee taxawal fii nga xamante ni fépp fa la war a taxawal askan wi tey boobu di doy na. dajale ay collectif ak ay association yi nga li ñuy askan nga dañu am ay ak ay ko du gouvernement wala muy ONG wala muy ay structure privée yu melni aquatec di len ko di len fatali ni que ni buñu fi nekké askan wi ñoo tax ñu nekk fi askan tax ñuy ñu jóge jaar ci loor jaar Médina Dakhar jaar Touba Toul jaar Notto Gouye Diama te baat bi fa fekk yëpp benn la mooy Aquatech dégage tey dafa mel ni Aquatech dañ koo fee andi woon pour muy exploiter ndox mi waaye Aquatech ba mu ñëwee nekkul di exploiter ndox mi Aquatech li muy exploiter mooy nit ñi war a dakkal exploitation bii muy exploiter nit ñi dañu bëgg ngeen scandé yéen ngeen ànd mais Aquatech doy na Aquatech na waa Mboro amuñu ndox le mouvement Aquatech dégage moo def ay démarches bi ñu def ay démarches ci fexe ba jël lu toll ci ñaari millions ak genn wàll ak fukki junni jébbal ko waa Senelec ngir ñu mën a rétablir li nga xam ni moo nekk courant bi ci forage yi ngir askan wi mën a am ndox looloo waral bu set seetloo démb ba léegi yéen gi am ndox te xam naa ne namoon ngeen ndox ginnaaw li nga xam ni mooy HLM amul beneen quartier bu nekkoon ci dëkk bi nga xam ne amoon na fi ndox looloo waral tey bu yéen dañoo bëgg a booloo nekk benn te ñu bëgg a dimbalante na waa HLM xam ni bu ñu amul ndox askan wi amuñu ndox na waa HLM yi xam ni bu ñu amee ndox te waa te waa dëkk bi amuñu ndox ñu jéem gaaw jàppale leen ngir waa dëkk bi mën am ndox loolay waral ñi ci atelier di liggéey no frères menuisiers no frères tailleurs kenn ku ci mën nek nekk fi nga toog ñun ñii fa lañu waroon a toog topp dal suñuy liggéey wante dañ koo bàyyi ngir ñëw xeex ngir ndox mi ma leen di ñaan kenn ku ci nekk yu mel nii boo amee pour ñu libérer suñu bopp dafa war a une journée morte kenn ku nekk teg sa atelier ñëw xeexal sa bopp ngir libérer sa bopp ci bu mu ndaam gi ñu tek loolu mooy tax ñu mën a am lu ñu bëgg ci loolu le mouvement ak Aquatec dégage di woo askanu Mboro yëpp ak ku waay mën a nekk ak ku waay mën a féete ak ku waay mën di yëngu ak ci diine boo mën a bokk ak ci xeet boo mën a bokk. waaw dañuy féete tey tey moom da ciy féete waaw naa ko Aquatec dem na bu yàgg nañ ko aajël li ci kanam nag rawuli bëj bàyyi leen ban yegg fële. mooy Mboro ñii ñoo gëm Mboro. moo dafa am jafe-jafe ay leadership la am ñëpp am leadership ñu ngi taxaw di di Moussa Dagane baatu réew mi baatu dëkk bi dañ jàpp ni ñenn ñi dëkk bi ñëw seen bopp moo leen ñor lu mat fukki fan ak juróom ñu am pare bu ndox amul benn politicien bu mos a taxaw wax lancer askan bi muy premier le monsieur le maire ba ci gis mu gis ki xam ne mu mujjee ci ba ci ñoom. bul rek mooy population bi am problème bu ndox ku nekk toog sa ruq ñaata weer ñuy biir réunion ñu tey dox ñaata yoon ñu wane kenn musul génn kenn musul ñëw ba jamono ñu toll fii nii mu leer nag askanu Mbour laay waxal yéen askanu Mbour suba fexe leen ba bu ngeen di tànn maire bu ngeen teg seen dëkk bi na ngeen ko xool bu baax a baax a baax a baax a baax ak képp koo xam ne su boobee naka du teew soo ko xoolee fàtte. maanaam yi maa ngi leen di gërëm di leen sant bu ndax tam bii bu ñu ko am léegi fu Mbour war na fa changé. bu njëkk ba dañu def leen neex mais comme léegi xale yi yéen moom mu mbooloo ñun jeexal nañu ñun ñun ñun paa yi jeexal nañu dañu retraité fu mu ne retraité amul dara béykat yi amuñu dara même ñu jaay marché dañu dem ba ñëw dañu am dara kon nag mbooloo mu ngi yéene ko moom mbooloo yéene ko moom fu mu ne ñun jeexal nañu man fépp fu ñu ma waxee damay ànd ak yéen. fu ne maa waxoon ne ma ànd ak lépp parce que bu may ñëw fii Mbour bu may ñëw Taïba 72 73 kon boobu warutoon woon nii léegi yéen li ñu nee na laaj Moro ñu jotee ko Moro jël leen ko Aquatec Atec ku Aquatec na dégage ñëw pour eh, mirage nit ñi Atec dafa ñëw pour mirage nit ñi te ñi amuñu dara ñëw pour mirage nit ñi Aquatec xanaa ñaari demi ko le 19 feebar bi ka ñaata at feebar ñaata weer. neuf mois ba léegi yow ñoo nee dix dix mois mais encore feebar mu ngi ñëwaat dégg ngeen de dee naa nañ ko suul nañu dem. lii de man mosuma ko gis ci dëkk bi wax dëgg yàlla te li ko waral lépp lépp mooy société bu doy waar bii nga xam ne dëkk bi xiifal nit ñi di maral nit ñi dem ba ndox gën a cher ceeb ci kër gi. dem ba ndox gën a cher ceeb gën a cher dëwlin gën a cher lépp. ñu bare bare dootuñu nelaw guddi parce que 3 heures du matin dañuy am ndox bu ñu fanaanee euh, xaarum ndox bu ca suba saa du ñu mën lekk liggéey ak wàcce bu fi continuer bu ñu wattuwul Mboro moom kenn xamul fan lay mujj comme dem na nag noo ngi sant yàlla te fas yéene nag waa Mboro yor seen ndoxum bopp te yàlla bu fi ñëwati keneen ku dul moom it yàlla bu fi ñëwati. a nekk yoon. Terus kau, kau kayak Don't Water, not water. waaw ku nekk dana taxaw fi nga taxaw dañuy organiser ci kanam donc nañu nañu taxaw ku nekk taxaw fi nga taxaw di nga bu kenn déplacé wu. ci am solo mooy message bi nga xamante ne ko jàllale tey askan bi ñëpp dégg ko xam fi nga xamante ne la ñu jugee fi ñu jaar ba fi ñu yegsi fii ak fi ñu war ah euh, grand ci kanam soxla nañ la am na lay laaj fii ci kanam donc ñëwal ñuy wax na rek forage bii nga xamante ne ngeen di seen muy bi bay mu amuñu Salam nga lañu romb ñaari seen ay ba amuñu waaye teg li nga xam ne dafa njëkk a problème bu baax. defe naa ne bu ñuy wóor waxtaan nga ñëw di commencé ay problème bu ndox loolu li koy wane ni mooy problème te loolu li ko waral rek mooy ñàkk taxawaay bi nga xam ne monsieur le maire moom lañ fekk taxaw te dina question boobu waaw gestion boobu la foofu laa foofu laa doon jëm bi ci wane rek ni li ko waral mbir mi suuf suuf la ndax day wax souvent que nit su yàbbee sa kilifa rek yàpp bu fekkente ne ki nga xam ne premier magistrat de la ville moo war a nekk suñu avocat moo war a jiitu ci xeex bi moo war a dénoncer bu fekkee kooku day taxaw di def ay éloges pour gestion bi nga xam ne moo fi nekk mu kaw a tiit quoi teg donc dañuy jéem a góorgóorlu ndax moom moo ñu wax ci laa ma ñoom dafa jëm merci merci Didier merci ñun ñëpp ñu waxandoo Aquatech dégage Aquatech dégage Aquatech dégage merci population de Mboro kontaan nañ seen présence tey vraiment lii lu historique la lii tey wane ne Mboro benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar wax dëgg fa yàlla xeex bi yàgg na te metti na depuis 2018 la fi ak waa teg ñëw ba léegi lépp loo xamante ne mooy loo fi andi nekkul lenn lu ay xam ngeen ne suñu yaay suñu papa yi suñu waajur yi bu njëkk avant Aquatec bi fi nekk daaw ñu fay facture facture ndox cinquante mille francs wala trente mille wala li ci yokku ginnaaw ba ñu mënee combat bi nag lépp loo xamante ay démarches def nañu ko ñii nga gis fi nii tey am na si ñoo xamante ne war nañoo jàkkaarloog askan wi tey ñu wax leen fi ñu jugee fi ñu jaar fi nga xamante ne foofu la xeex bañ ak si fi tey ñëpp ay doomi mbooloo lañu la ñu juddoo ñëpp fii la ñu màggee peut a xëy xanaa occasion la ñu dul woon am pour mën a rassembler lii mën a xeex lii mais yàlla def na ne 2021 tey incha allah buñ ko rondee dootu ñuy jooyati ay doomi Mboro dootu ñuy jooyati jafe-jafe fii ci Mboro ay doomi Mboro. màgg nañu pour xeexal seen askan. donc ma leen di wax ne li nga xamante ne ñaari démarche lañ woon la ñu jot a def démarche administrative mooy jaar ci kilifa nga xamante si lañ war a jaar ak démarche judiciaire yi man nag duma leen ko mën a yeggee je suis le chargé de la communication mais je vais vous donner. je vais vous donner ki nga xamante mooy suñu yaay booy. xamuñu xeex xamuñu xuloo waaye li ñu dal ku dal nga génn forage bu day nii ñu xeex ba am ko teg ko ci loxo Aquatech kenn xamul fu mu jóge fukki fan ak benn mu tëj ko bàyyi ñu fu ne ñu dugg fa di kaanaatu loolu ku mu dal dina génn kon waa Mboro maa ngi leen di yégal ne bés ni tey seeni doom taxaw nañu pour xeex xeex bi xeex nañu ko ba jotaat ñaari forage yi loolu moo waral ngeen xeex ba jot seen ñaari forage yëpp dem ba tey yéen a ngi am ndox am leen benn problème ma leen di wax ni leen le mouvement Aquatech Dégage fa mu taxawoon démb fa la taxaw tey te moo nekk lan fexee jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk jafe-jafe ndox ci askan wi ñu fexe mu dàkk ndax ndox kenn ku ne xam ne ni avant Aquatech di ñëw le mètre cube maanaam juróomi barigo yow nga xam ne nii 200 litres la ñu ngi doon jar fanweeri dërëm bi Aquatech di génne ko yóbbu ci juróom fukki dërëm loolu bis ni tey dakk na ñu di wax ni

xol nak la ñuy mëna def ay amélioration wañi ndox bi wañi facture bi wañi boo de coupure yi kon ku gis lii xamni sa xol warna naa wa Mboro nek na lo xamni bu ñu jógee bëgg li lira dinañ ko am li mom ku mu dalul ku mu seetlu sa xol sa xol dootul sedd moom mu jaam nga dagg na yàgg nañoo tay Mboro di ko not di ko dóor di ko gaañ léegi doomi Mboro mag nañ ak si jël nañ suñu yëf legi kep ko xamni ne taxaate ci Mboro bëgg ñu not bëgg ñoo door dinañ taxaw fayal ko suñu bopp loolu rek laa ci doon wax yéen ñoom mbooloo fu mu nekk ni gëm nañ seen bopp Aquatech solo la nit ñi mais bés ni ki tey incha rabbi paa yeeg maire yeeg jeunes yeeg ñëpp dañu ànd di xàccandoo di doorandoo incha allah pour mën a résoudre suñu problème incha allah on va demander à ce que l'Aquatech dégage te à d'aujourd'hui incha allah rabbi nous serons indépendants indépendance kon boog Aquatech di wax ci turu conseil municipal yu bokk ci ak waa dégage di wax ne problème bi nga xam ne moom moo ñu seq di lancer appel gouvernement bi ak waa dégage gouvernement bi buy joxe ndox waroon naa def ay enquête boo xam ndax li nga xam ne moom mooy population yi dañ doon def seen commission jël seen i alal def ci au lieu que ñuy fayeeku mais dañ doon jël seen alal di ci dépenser moo doon bay seen i recette yu mu doon am foofu mooy jël yi su demee ba bañ jëllu day na nag entreprise teg lan mooy entreprise directeur général ak équipe am directeur financier ak équipe am directeur l' exploitation ak équipe am ñu jor seen salaire seen IPRES seen i indemnité seen i caisse sécurité sociale luyee seen loko yooyu yëpp bokk buñ ko boolee bëgg ko teg ci askan wi du mën a sotti askan villageois yi attanuñu loolu loolu moo tax nun mënuñu ci ànd tey mënuñu ci ànd ëllëg waaw si de Mariama waa Daaru Salaam tey ñëpp kontaan nañu naan nañu ndox sangu nañu togg nañu def nañu lépp xale yi sangu nañu jàng nañu maa ngi gërëm ñëpp du sant ñëpp ndax taxawaay bi ñu taxaw waa Aquatech dégage ba jëlee ko fi ñoom dem nañu seen patt daal bi moo fi des nañ leen dimbali ngir yàlla bu ngeen koy jël buñ bu ne kenn dóor kenn du ñu bu muy jaaxe génn leen jigéen ñi nan leen bañ nan lank Sénégal jigéen ñee ko yor lu masak masa am rek jigéen ñi ko xeex ba am laaj leen génn leen ak waate jagal ak fulla fayda respect di ne am dem ci forage f Davi tenir li nga xamante ne suñu discours jël suñu forage delloo ko doomi Mboro yi ko manuk jéem a feeñal Mboro yi tey Mboro ngi ñaan wallu ngir ak walwaleem gi fi nay ñëpp ñaan ndox mi wal ñëpp di dox lu ko faj yi nit di muñ ndox da cee bokkul ba tax ñu di wax nëbal gi jaaduwul ak naan mënta ñàkk ñu wax njàpp mu doy xepp ak yenn natti mbir yi ñu war waa Mboro kon wax ci lii daa jot danañ ci sawar suñ mar wi tar na ndox mi ñëpp xam doyul kon ñoo ngi ñaan wàllu kon yow njiitu réew mi wuyul wartiif yi war mbooro buñ koy laaj nga gis ñu taxaw mel ni dañoo bëggul yokku mbooro féete ca kaw suñ mar wi tar ndox mii ñëpp xam doyul kon ñoo ngi ñaan wàllu kon yow njiitu réew suñ capp yi nee na ñoot day tax ba napp di daw waaye lu ciy pexe jeggee gàddu paan di daw àndaale yokkut ak fakkiir ñëpp ñaxtu ba mer ñeewante nan ñëpp daa raw néew gi doole yi mer ciy ako waa teg fu ñuy teggee te lii mu ñu teg bu dee ci ñun nañ ko waxtaanee te muy suñu sag ciy ako waa teg nañ ko waxtaanee te muy suñu sag buur yàlla jullil ca kaw yonneen ba moo ki ñoñam wa sax bihi ñoo ngi ñaan am ndox ñuluk suñu ñam ako waa teg dégage li ñu fi boole tey jii nag ku ne xam na ko mooy wàllum ndox ñu tàmbali woon boobu ba léegi mi ngi mat ci 10 mois ñu nekk di jub di daanu ñu bëree bëree bëree bëri bi ñu doog a tàmbali gëmuñu sax ni danañ agsi fii tey jii. kon nag bu ñu ba aksi fii tey jii yéen ñii taxaw fii nii yéen yéen waral taxaw waral. ndax benn loxo du tàccu kon nag bu ñu taxawee fii nii ba mën a wax tey jii yéen yéen a dooleel ndax bi ñu leen daan coupé ñuy ñëw seen i kër bañ leen leen bu leen fay facture ndox yi boo leen ko fayoon tey combat bi du yegg si fii. bañ leen coupé it ngeen woo ci suñuy téléphone ñu ñëw fekk si leen delloo leen seenu ndox ña nga xam ni doon nañ fay sax dem nañ ba ci bi ba ci ginnaaw bi sax daal fekk fekki suñu ci li nga xam ni moom mooy dëgg ndax dëgg rek moom mooy mu fi ba léegi. amul benn facture Sénélec boo xam ni fay na ko ñu coupé ñu courant ci forage yi lu toll ci cinquante deux millions cinquante deux millions fi mu toll nii ak waa teg ameel na ko waa Sénélec te ba mu fiy jugee ndekete turam nekkul ci facture Sénélec yi forage de Mboro kon nag waa Mboro la fi bàyyil bor bi bor bi waa Mboro ñun ñii bu fekkee bëgg nañu ndox ñun ñoo koy fay li tax ñu indiwaan na ndox mi dañoo joxe ñun ñi nga xam ne ñoo ngi ci comité pilotage bi ak 5000 francs yi ñu leen doon laaj 5000 francs yi il faut que ñu leeral ko 5000 francs yi li ko waral moom mooy mooy raxas facture yi ñu leen waxoon ni téye leen ko ndax ku ñu joxoon 5000 francs 10 000 francs 25000 ñun la téye ko bu ñu yegsee fii nii bu ñu nee la joxeel 5000 francs ñu raxas loolu war nga ko mën a nangu. yaakaar na ñoo ngi leen ci woo nag ñoo ngi leen ci woo ndax bor bi dafa bari te bu ñu bëggee mu gaaw a jeex il faut que ñun ñëpp ñu bokkandoo fayandoo 5000 francs yi. leneen li may wax moom mooy facture yi incha allah ñun danañ jéem a fexe ba ñëpp di dugg ci biir quartier yi di waxtaan ak yéen lépp loo xam ne lu am ci biir ndox mi daan leen ko wax yéen ngeen xam ko. li ñuy sant nag moom mooy ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ci biir comité pilotage bi ñu ngi ci biir mbooro ñu leen di fekk ci biir quartier yi ñoom ñëpp dañ leen di sant di leen gërëm di leen wax ak le commandant. le commandant mi ngi def liggéey bu am solo ci biir Mboro buumum jaam dog na ci mbooro buumum jaam dag na ci mbooro mbooro nag mooy xool fa teg tànkam ñu bari ñu ngi ci dëkk bi tey jii lii ñu def tey jii ñoom ñoo ci waroon a jiitu kon nag buñ agsee fii yéen yéen a xool foo leen bëgg yóbbu seen dëkk seen dëkk yéenay xool foo leen ko bëgg a foo ko bëgg yóbbu fi mu toll nii daal sunu ñaari forage yëpp récupéré nañ ko ñaari forage yëpp récupéré nañ ko mi ngi xelli ndox ñaari forage yëpp récupéré nañ ko mi ngi xellum ndox waaye nag problème yi fi Aquatech bàyyi woon nañ xam ni problème technique yi du ñu ni nag suba wala ginnaaw suba lay lañ koy réglé loolu il faut mu leer kon nag il faut que ngeen bokk nag di ñu muyoon loolu il faut ñu wax ko fi nga xam ni ndox àggu fa danañ jéem a fexe ba def ay analyse def ay diagnostic lépp lu ñu war a def danañ ko xaatim ci ay kayit ñi nga xam ne ñooy yore ndox mi ñu jébbal leen ko li nga xam ne lépp luy problème ndoxu Mboro daan leen ko wax waaye nag il faut ngeen nangoo takku nangoo euh, xaar nangoo muñal ñi nga xam ne ñooy yore ji ndox mi loolu il faut que ngeen bàyyi ko xel liñ leen mujjee wax daal moom mooy 5000 francs yi ngir yàlla dem leen fay ko ngir yàlla dem leen fay ko ndax fan yii passé gis ngeen euh, biñ fi manqué ndox doon nañu woote pour ñu jënd gasoil gasoil ba mënu won yor ndoxu Mboro ñu ni kat dañuy dem négocier ak wa Sénélec wa Sénélec ba ñu leen négocier ba paré ñu ni dugal leen ci bor bi nga xamni moy 52 millions yi ñu dajalé ba duggal ci 2 millions 550 000, kon la ca dess barina 25 mois lañ ñu may pour ñu fay lolu chaque mois 2 millions lañuy fay kon nak képp ko xamni indi lañ la facture ngir yalla demal fay jiko ndax ndox mi du ñun ñoo ci naan du ma samba ma demba wa Mboro yépp la kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm kenn ku ci nekk sa taxawaay gis nañ ko muy góor muy jigéen kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen wax ngeen ubbi seen i bët Mboro soxla na leen yéen ñëpp. bu ngeen di sante bu baax di leen gërëm di remercier tamit góoraloo mi nga xam ni chaîne bi moom moo ko fi indi ak euh, monsieur Lamane Jiite ak ñi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ci combat bi. Rom Diaz mi nga xam ni son bi ngeen doon dégg moom Rom Diaz la dëkk Kër Magor kon nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm kon nag nañu tàq. kon donc ñuy remercier ñëpp di sant ñëpp. Merci Ibrahima. fu ñu toll lépp a taal. ñu tëdd ñu lu ko jaar. dañu sonn dañu naan. ñoo ngi dee ci mar. ndóol ak xiif suñu yoon. ñu lépp a tar. ndax gaynde bukki yee ko boot. lan ngeen ci nar. lu jot a ruus ci suñuy poos. suñu xel yi gis ndox. te ngelaw rek la ñuy ko. doole tax na lépp ñu diis wala mënul béy ba bun bi sax di cof suñu jiis ñun coono lañ miis bu dee dégg mooy fay ñu jeunes yi jóg ci coono semence baa ngi ñuy rey fii lépp tàkk te gisoo poos waral ñee di mandi ñee ne ñooy fay yéen a ñuy rey bëgg a tëñu dañu maa waa Mborosen bu mu njaam dog na te yéene ko daggal seen bopp gis nga lii rek la askan mënal boppam yàlla du wàccal di xeexal kenn boppam ku nekk ci dëkk bëgg loo bëgg da koy xeex ba jot ci